askan wi yéen déglooti leen te ma xel déglooti leen ma soññu leen te dénk leen yu leer baraw mi di askan wi yéen teewlooti leen te ma xel déglooti leen ma soññu leen te dénk leen kàddu yu leer baraw mi di réew mi ma dox di wax xalaat yuy solution la naa ko waat ñoo ngi ci jaaxle ak ñàkk njiit ñoo raw ginaar yu ñu siddi góor ak jigéen mag xale na ñëpp gàddu seen bale dem ngeen ne ña biir pale jël réew mi dal di joxi di góor ak jigéen mag xale na ñëpp gàddu seen bale dem ngeen feeñ biir pale jël réew mi dal di joxi di mën nañu lu ko dal ci politique erreur politique bu ko dal mën nañ ma neexee ma ni bon xëy na dañ koy fayaat parce que lii mu am tey jii Serigne Saliou moo ko ñaaloon ñëpp di ko ko parce que problème euh, ak euh, Ablaye Wade Ablaye Wade dem ci Serigne Saliou ni Idrissa kat dañ maa taqaloon dañ ko ak man léegi ñi liñ ko taxaloon nit ñi seet nañ ñoo gis léegi wan damaa bëgg yow nga ñaanal ma ko mu dellusiwaat ci sama keppaar sëñ Saali woo Idrissa kat ne ko fii nga toog fi la sa fi sa baay la nee na dañ laa taxaloon nit ñi seet nañ ba soon gisuñu dafa bëgg nga dellusiwaat ci moom Idrissa sëñ Moussa Naal mi ngi toog sëñ Moussa Naal moom kenn du ko kenn du ko seede la loo xamante ni ci sëriñ Saali du dëgg Serigne Saliou Serigne Moussa Nawel moom moo ne Serigne Saliou Idrissa mi ne li nga ko wax bu ko defee dina ci am jam-jam yi politique waaye ni ma la xamee ak moom ko yilif ko yilif jamono bu ko defee lu mu yàgg-yàgg ndam la ciy jëlee Serigne Saliou ni Serigne Moussa waaw loolu de bu ko defee lu mu yàgg-yàgg ndam la ciy jëlee yaa ngi dégg sëñ Moussa dafa yuuxu jour boobu sëñ Saliou teg loxo bi ci bopp bi ni ko walaay Moussa lu mu yàgg-yàgg ndam la ciy jëlee Saliou santoon parce que ba muy dem di wuy ji Abdoulaye Wade waa këram ñoo ko njëkk a mere jabaram ak ay doomam ñoo ko njëkk mere mais daf li leen ndigal li fi mu jógee ndigal li fi mu jógee mënu ma koo ñàkk a def ndax ndigalu Serigne Saliou la loolu bu ma ko santaatoon tey tey naa ko defaat tey lu ma ci fekk baax na loolu loolu moo waraloon Idrissa 2007 mu dem élection jël deuxième dem jël deuxième demaat élection jël presque cinquième ñu ni kon léegi erreur bi mu def mooy lim delluwaat ci Abdoulaye Wade mais loolu du erreur kon mën nañu ne Idrissa jam-jami politique yi sëñ Moussa doon mooy loolu ko daloon te loolu mën nañ ne bu ñu neexee ñu ne mu sëñ ci ci ndigalu Serigne Saliou la jëfe moom moo tax mu am loolu mais ndigalu Serigne Saliou moom doo ko def doo ko jëfee ba pare di dellu ginnaaw parce que jamono jii jamono jii ñi gënoon a bañ Idrissa ñoo gën a bëgg Idrissa actuellement nii fexe ba nas ko te ñu nit bu ñu voté ba pare ñu sécuriser centre de vote yi parce que nee nañ buñ ñu cofee ñu daanu dañ ñu bëgg a cokkaas ñu xeex ak ñoom ñu annulé bureau Touba yi kon bu ñu voté ba pare nañ ànd ak discipline ku ñu kereel xeex nañu bañ parce que ñoom li ñu xalaat mooy buñ ñu cokkaasee ñu xeex ak ñoom ñu yàq ñu yàq bureau de vote yi kon bu ñu voté ba pare képp koo xam ne amuloo position pour pour des fa di wanewaat leneen ñibbisil jéem a keree mag ñi ci koñ nu ñu demee voté ji ñu jëlaat leen indi leen ña nga xam ne ñooy les responsables du bureau. nga xam ne ñooy mandataires yi ñu fexe bañ am vigilant bi bu ñu leen indilee problème ñun ay mandataire lañu ñu wooñu ñu ñëw régler ko tranquillement sans détail du am benn coow képp ku voté dellu si ñëw taal sa rajo ni ko Macky Sall di waxee ne toog di xaar bàcc ñu di ko bàcc muy onk ñu koy bàcc incha allah lii nag li ko waral mooy dañuy politique politique bi nag li waral loolu mooy danoo bëgg sa jël ndam ndam li Idrissa jële jële nag maanaam danoo bëggul mu yegg premier tour danoo bëggul mu yegg deuxième tour premier tour lañ bëgg mu ko waaw ndax Idrissa li mu li mu nësër ci Touba moom waa Touba képp moo ko mën a may ni ko waa Touba mën a may nag mooy am na yéene ci Touba bërki démb rek bi mu ñëwee ci meeting bi bu du won lenn lenn ben acte bin fi def rek jarna jarna wa tuba waa ko ndax dafa wax ni bu gañee réew mi day bu soobee yàlla Touba danañ am ndox mu set ndox mu sel mo xamanteni dañ koy am comme ni ko Ndakaaru amé yes amé ko ni ko amé ko ni fenen amé ko ni loolu rek jarna ko waxantuma la ak lenen deuxième li ci des Idrissa sangor jarna fi chrétien Abdou Diouf jaar na fi kenn xamul lu mu doon Abdoulaye Wade jaar na fi nekk ab murit yaa dégg Macky Sall jaar na fi nekk Tijaan kenn xamul lu mu doon Idrissa mii nag dafa wax ni man man murit laa bëgg a doon sa ab murit laa doon kenn koo xamante jaar nga ci réew mi ndax Idrissa mooy koo xamante ni am naa yaakaar ni bu jëlee réew mi bu demee juma mën na xu mën na mën na jiital mën na jiite ci juma ji xutba xut boobu leer naa ci moom rek moo sam Idrissa damaa yaakaar ni musta yàq Saïd alxuraan da koo mokkal macha allah te loolu mosuñu ko am ci président président boo xamante ni nag bu gaa yi dajee conseil des ministres muy leen waxtu julli jot na mu jiite leen kooku lañ ko yaakaare muy président kon nañ ko jàppale te xam ni ab murit la ab taalibe la ku mokkal alxuraan la ku mokkal xasida la macha allah jërëjëf kooku Serigne góor ak jigéen mag ak xale na ñëpp gàddu seen bale dem génn ñee fa biir pale jër réew mi dal di joxi di moo gën ci ñun day galak buñ ko deful daañ ñu xalak buñ ko defee xuus gee ji mbég na nangu réew mi joxi ndax ñoo ngi tàbbi ci guta bu doon ni réew mi day wata daagaare ndax vitesse yu të nan nangu baar bi joxi nan ko defit ci njëkk ak jàmm salaam te ñépp jóg jël seeni xob dem woote nag ba irni yépp doon yi di